Masalikul Jinaan wajalilaayi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat inauguration Massalikul Jinaan war a doon le 27 septembre 2019 Touba ca kanam nooru daaray ni fas yéene mobiliser mbooleem ay équipe am ci Ndakaaru du 23 au 27 septembre 2019 ngir ànd ak mbooleem taalibe yi liggéeyub Serigne Touba bi looloo waral daañu amal seen quartier général ci place de l'Obélisque du 23 au 29 septembre 2019 ngir bépp taalibe bu bëggoon a barkeelu ci liggéeyub Touba ca kanam bi wala nga bëgg a adhéré ci Touba ca kanam mën nga ñoo fekk suñ quartier général nekkee ci obélisque du 23 au 29 septembre 2019 wala mboolem information boo bëgg ñu leeral la ko ci Touba ca kanam boo fa ñëwee danga fa fekk mboolem équipe bi nga xam ne daañ ko metre sur place mbokku jullit yi mbokku taalibe yi Touba ca kanam di leen xamal ne mi ngi ci quartier généralam boobu du 23 au 29 septembre 2019 di leen woo ngeen barkeelu ci liggéey Touba ca kanam bi ngir ngeen bokk ci ñi jëmale Touba ca kanam